Euh, salaamaaleykum mbokk àdduna salaamaaleykum waa Sénégal ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di amaan mbégte ak contentement di teewaat seen émission découverte bi ñu saxoon di def saa su nekk di ci invité ndaanaan yi tey nag tarkalla macha allah ñoo ngi ci dalal ndaanaan loo xam ne kenn dootu ko présenté ci Sénégal rawatina fii ci Nioro gi ñu nekk kon dañu koy bàyyi tey mu présenté wu ngeen xam sunu invité mooy kan. asalaamaaleykum mbokk internet yi asalaamaaleykum sama animateur bi asalaamaaleykum waa Nioro waa Sénégal boobu waaye man la waxal rapport artiste Nioro aka King Ena Ba. ok merci beaucoup waxal tey mbokk internetu xewal gi TV ñoo ngi leen di fàttali ne ñoo ngi dalal tey waxal di artiste rappeur nekk fii ci diwaanu Nioro di ndaanaan loo xam ne yaakaar naa kenn dootu ko présenté fii ci département Nioro euh, waxal gis nañu. waaw yaa ngi ci gém bi di def lu am solo macha allah bëggoon na nañu xam waxal mooy kan. bon waxal artiste la bu yoo Nioro fii juddoo Mbaye Faye benn dëkk bu nekk si département Nioro foofu suñu origine yaroo Nioro xam nga màggee fii nii defee fi suñu étude xam nga instant yi on est en formation à l'école nationale des arts toujours continuer art bi waa waaw. Euh, mënoon nañu xam waxal lan moo ko dugal ci rab bi nga xam ne tey moo ngi koy def. amour bi gis nañ ñu né yaangi ngi ci di ci def lu am solo mais man nga ñoy xam fan la tambalé ba tey bi nga fi nga yegg si fii bon waxal liko ko ci rap bon ñun sax xamuñ ko da nek ci ñun naturellement dañu nek ay boy di déglu rap di déglu rap rap dépassé ñu ñuy bind rap xam nga di bind ba ben instant mëna natt yem ci bind bi di dugg ci studio yi di enregistrer suñu texte kon dañuy naan rap dafa ñew màgg ak ñun quoi yeah ah okay kon mën nañu jàpp ne loolu la moo la dugal ci rab hmm? léegi ñu bëggoon xam waxal parcours am ci rab bi fan la jot a tàmbalee ba tey ji yaakaar naa foo toll ci Sénégal yaa ngi koy dégg turam waxal waxal mais ndax mën nga ñu xam fan nga démarré. bon tout a commencé ici à Nioro lépp Nioro fii la commencé ñu yàgg dóor ay son duñu am sax ay moyens pour génnee sound bi def ko single xam nga. mais quand même di doon dem si concert yi di ko jaayante yenn saa yi sax du ñu invité si concert mais dañ koy jaayante pour bëgg a dugg wane suñ talent. Mhm. xam nga dañuy dugg imposer jouer live teg suñ biit gars yi yëngal xam nga ñuy teg di tasaare xam nga dèjà suñ tur dem na boobu ñun génnuñu sax ah single. Mhm. suñ tur bi muy dem rek sax génne wuñ single. Mhm. tu vois parce que loolu noonu dafa doon loo xam ne ñoo ko doon forcer. ñu dem ba benn instant xam nga xam ne dafa jot gars yi di soxla di déglu waxal xam nga mm-hmm. ñu jaayante dem dóori suñuy single génnee ko après gars yi di ko cons xam nga toujours continuer toujours topp logique bi di génnee ay single topp benn logique tamit nekkuñ dañ koy génnee par hasard wala dañuy am envie rek def mais dañoo topp benn logique boo xam ne ñoo ngi si kawam di ko joob mm-hmm. te incha allah am na fu ñu commencé te gis ngeen fi ñu yem te am na fuñ jëm incha allah euh, dana leer quoi mën nga ñëw ak ñun ci son bi nga xam ne. Euh, moom nga njëkk génne wala moom nga njëkk bind. man hmm, nga que mën nga ci ñëw ak ñun ndax fans yi ak soppe yi ñi nga xam ne ñoo ngi safoo di seetaan Xeweul gi TV. Hmm. dina dinañu safoo di xam. fan nga débuté ak son bi nga xam ne tey moom nga njëkk a wéy ba tey jii nga nekk nekk au fii ci Nioro bëggoon nañ nga ñëw ci ak ñun. yeah bon son bi ma njëkk a maquette son love la. waxal bee bi. boobu laa njëkk a màggee. Hmm. waaye defe naa 2000 lan la woon sax 2018. 2018 waaye laa ko njëkk a màggee boobu laa njëkk a def. Hmm. waaw boobu mën nga ñu ci ñamal tuuti. Hmm? def ko a cappella nii rek xam nga. waaw mën na ne waaw. baby waxal baby waxal baby yow laa love man yow laa love yaay sama xol. yaay sama xol yaay sama xol yaay sama xët bi ñu njëkk a daye man ak yow la rekk booy nga xool ma sëg man ma xool la sëg nga sàcc di ma xool suñ bët yi daje ma sëg ree yow nga sëg ree li fa am ma mooy dañoo bëggante dañoo bëggante dañoo bëggante bi yow laa loof loolu moo nekkoon premier couple bi xam nga ak genre refrain mooy tey son bi nga xam ne moom la waxal moom la waxal débuté waaw débuté quoi ci aar bi mm-hmm. euh, macha allah tarkal la neex na am na boo ko déggee da ngay xam ne mm-hmm. wax la eh, dafa doon benn loo boo xam ne dafa naturel incarné wuñ ko mais dama ko dund ko parce que mbëggeel naturel la daal. mbëggeel jarul wax. waaw dama koy dund nga ko. dund ko. waaw Sénégal jëm kanam. waaw parfois gars yaay forcé. Mhm. imposer si xelu nit ki. Mhm. dugal si ay mots. Mhm. pour jéem ko convaincre la nekkatul mbëggeel. mais foofu noonu da ngay chercher à convaincre parce que ki ngay wax ne bëgg naa la. wax ji nekkul bëgg naa la. mais wax ji mooy dama bëgg nga bëgg ma. looluy wax ji. kon ce qui veut dire foofu noonu li nga bëgg moom ngay jéem a incarné si boppam. Mm-hmm. mais mbëggeel dëgg da nga koy dund mu dugal ko ngeen live quoi. ok booy bi bi ñu ko dégloo son bi. Mm-hmm. est-ce que réellement rap la lii ban genre musique la lay lay. loolu dance euh, euh, afro dance la woon presque. Mm-hmm. waaw genre boobu la woon quoi. puisque dama fort ci wewu bëy. gars yi des waa nga ñu waxal du rap. lay def. maanaam c'est-à-dire day def mbalax day def yooyu. c'est-à-dire que du purement rap lay def. lolou mhm. loolu na bu ma ñëwee dinañ ci dinañ ci waxtaan nga leeralal ko ñenn ñi ndax ñu bari. Mhm. lolou la ñuy wax. Mhm. bon lolou dina ma neex ma tontu ci parce que parfois ma jot si gaay di ko wax. mais bu dee rab kese gars ku ma ko dàq ñoro amul te ku ko wéedi na ñëw ñu teg batal bu dee rab kese ku ma ko dàq ñoro amul mais man c'est vrai yéemu ma si rab kese musique laay def je suis en formation à l'école nationale des arts dama am instrument di jouer clavier di jouer kora di def ay intonation histoire de la musique xam nga di def hygiène hygiène vocale ak leneen i leneen musique de musique en géné en façon générale dama koy jàng te boo koy jàng ça va falloir yow sa bopp si sa aar gars yi di ko si gis tu vois mais concentré wu ma si benn affaire kese naan loolu laa bëgg a génne quoi non non rab dama ko mën mais yeneen affaire yi tamit dama ko mën. Mhm. xam nga day baax ñu leeral ko expliquer ko puisque. tey bu ñu lay wooyee waxal la ñuy wax rappeur la. Mhm. te alors que yaa ngi dégg ñenn ñi. Mhm. ñooro da ngay dajeeg ñenn ñu la waxal rabul. xam nga moo tax ma noon question boobu moom faw dinañu ko poser. mais baax na bi nga ko expliquer pour ñenn ñi ñu xam ko. loolu day am solo. bëggoon nañ ñëw ba xam aussi depuis nga débuté ba léegi. waxal ñaata single la génne wala album. bon bañ débuté ba tey instant yi ñoo ngi si huit single. huit single. Mhm. def nañ huit single ak yeneen projet yoo xam ne mooy loolu noonu. huit single yi mën nga ñëw ñun ci titre yi yan genre titre la. Euh, def naa waxal baby. Mhm. micro. waaw mhm. def naa waxal baby. def naa jaaytaar. def naa góomu deyaale. def naa hypocrite. def naa var. waxal VAR def naa ko. Mhm. Euh, def naa waxal 3K. Mhm. Euh, euh, def naa tamit ma xool am na yeneen 111. ci Cheikh Rafal je pense. Cheikh Rafal bi def naa ko mm. featuring la woon. featuring Sadio Mané bi tamit def naa ko. boobu mm. tamit featuring la woon. Mm. waaw ñaar yooyu ñooy featuring. mais yeneen yi si des yëpp man maa ko joué. live bi single ko waaw ay single. Mm-hmm. <laughs> ok merci beaucoup ci leeral ñu ngi fàttali mbokk internetu xewal gi TV yéen a ngi ànd ak ñun seen émission découverte bi ñu saxoo def saa su nekk di ci invité ndaanaan yi nga xam ne tey ñoo ngi ci département Nioro. Mm-hmm. ay ndaanaan yoo xam ne kenn dootul leen nattal lépp si seen jëfin seen doxin ci ni ñu defee macha allah man ko tarkal la ñoom am ak kontaante tey dalal ndaanaan loo xam ne tey fii la soxee ko fii la dëkk di waxal nekk artiste boo xam ne euh, ku man li muy def la macha allah tarkal la moom lañ seqatee plateau waxal ba léegi dañuy ñëw ci euh, question yi waxtaan ak yow puisque affaire yi waxtaan la ginnaaw bi ñu waxee présenté wax ñu ay kan euh, fi nga jot a jaar wax ñu ñaata single nga génnee bëggoon nañ ñëw waxal ndax mas na def concert Nioro ak ñaata concert la mos def est-ce que mas na génn Nioro def concert faneen. bon waxal concert yi mu organisé yépp ñoro la ko defee parce que ba ñoo ngi def ay édition pour chaque année demon nañ ba toll ci 3 troisième édition NA show chaque année dañ doon def daw lañ ko deful. daw lañ ko deful parce que daw dafa am ben programme bo xamné ne si lañ nekkoon mais malheureusement coronavirus bi dafa intégré won mënuñ won continuer ci genre jeu boobu noonu moo defuñ ko won mais chaque année dañuy def ben benn concert bu tudd NH Show te en plus am na yeneen concert yoo xam ne euh, concert wu mbedd lay doon woon yoo xam ne dañ ko doon maye mais à part ça concert yoo xam ne ñeneen ñoo ko def tamit invité ñu am na yeneen concert yu bëri yoo xam ne joué nañ ko waaw Dakar Mbour euh, Nioro fii nii Kaolack waaw pas mal yoo xam ne wóor nañ dëkk yu bëri di ko def waaw tey euh, waxal dafa am loo xam ne actualité la mhm. foofu ñu ñëw ci ginnaaw bi nga leerle lu bari muy tey sax problème ak ñi nga xam ne mooy waa express gis nañu ne génnee nga benn son boo xam ne ñoom nga ci waxal bëggoon nañuy xam nga ñëw ñun ci histoire boobu naka la demee puisque malentendu bi da cee bari ku ci nekk moo ngi koy waxee nu ma ko déggee ñenn ñi di wax te comprendre duñ mais yow mi nga xam ne yow la histoire bi yow la daal bëggoon nañu nga ñëw ci ñun expliquer ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan pour ñu comprendre. bon bi préparé wuñ ko xaaruñ ko dafa ñëw naturellement ñu dund ko tu sais ñun duñu ay complexe te ñun ay original saalum saalum lañ kenn du dox si suñu bopp yi te kenn duñu tuutal ñu lay seetaan c' est que peut être bu doon ñeneen la yenn saa ma dégg gars yi naan peut être waa express waxal dafa bëgg buzz dans ñu soxla wuñ buzz xam ku soxla buzz ku amul talent ku gëmul li muy def ku foog ne mënul yegg fi mu bëgg a yegg tu loolu la mais ñun soxla wuñ buzz ñun dañuy liggéey dañuy yàgg a job di génnee suñu projet santé te mosuñu def lii mosuñu am bif ak ken amna ñu ñu sànni picc xoluñ len tuduñ len parce que taluñu leen mhm. ya ngi comprendre mhm. mais bo bo defee ben affaire ba paré bëgg manquer de respect laa da may jot mhm. waaye express ñun ak man ak ñom ñooy est-ce que est-ce que est-ce que laa li gars wax amul hein? comme waxal tey ñom gis nga waa espèce comme fi ñu toll actuellement est ce que du waxal buzz la bëgg comme ni ko ñenn ñi waxee demeewul noonu nga yaakaar. bon loolu peut être yow da nga koy xalaat yow ak gars yooyu noonu mais man xam naa si nekk waxal dafa gëm boppam mën li def man kenn du jaar sama kaw peut être bu doon ñeneen la danañ jaar seen kaw ñëw jël seen son def seen affaire yooyu ñuy complexe ragal ne duñ wane seen bopp c' pas ça man sama produit sama produit la sama job sama job la te man tamit kenn du sous estimer ñom fiñ fait fa la ay artistes lañ. Mm-hmm. artistes la mm-hmm. yaa comprendre te man sax maa man fuuf maa si ëpp leen xel te man musique laay def de. ah bon si musique dañuy suux parce que man mun jouer son live teg samay clavier di jouer samay affaire te ñoom xamuñ loolu mun lire partition kaana yi bu ma partition ma jouer ko léegi ñoom buñ leen partition ku koy xamuñ ko. te instant bi dañuy yegg à la limite instant yi si lan la ñuy def côtoyer benn booy booy bi ñëw parfois toog si studio yi si côté yi booy yi suñuy enregistré ñu toog di déglu booy suñuy génn ñu enregistré seen son parce que booy excité nañ leen. Ah bon booy dugal nañ seen bopp benn affaire c'est vrai que mun nga bañ a dégg sax sa mot mais yow mi nga xam ne yow mi génnee son bi boo dégloo son gars yi dangay mel ni yow yaa ko wëy parce que dafa am loo xam ne dañuy wax flow flow flow maanaam du mot wax lii sama yëf la. xam nga hmm. technique dafa am yeneen technique yoo xam ne tamit mënoo naa lii sama yëf la parce que dafa international mais am na nooy agencé sa son beneen son ñëw agencé wu même chose même paroles buy génnul da ngay xam ne lii nii ñii nii dañoo inspiré aussi sa job te loolu dal nañu ba sonn récemment yemuñ si loolu noonu génnee suñuy texte dugalaat ko génnee suñu refrain dugalaat ko ba pare ñu jël affaire bi def ko estati ñoom ñuy jël suñu estati di ko commenté di saaga man war man man ku ma saaga man sama ndey ku ma ko ku ko saaga foo jaar yow tamit nga déglu la te biñ may ñëk clash di wax di saga dama leen si communication dama leen yar mhm. parce que dama ko né mag bu yem ni yow international ñëpp di la déwul ngay taxaw ci télé yi ak lu né di wax ah mhm. tey nga taxaw fi ni si benn fraction de seconde nga naan da ngay décrocher ay saga ndey comme xalé bu ndaw li ni man bétti na ma ci yow xaaruma ko won ci yow mhm. mu wacc mu ne ma yow sax duma ma ak yow boy yow da ngay bandi bandi lu commencé teg ay affaire tu vois am na lu bari lu ñu wax loo xam ne gars yi xamuñ ko si suuf la statut lañ ko waxtaanee WhatsApp écrit. ok yow yow bëggoon nañu xam sa relation ak ñoom ba balaa mu yegg si foofu. puisque tey boo nee ñoom dañoo am lu ñu jël ci yow. Ah. ñenn ñi du ñu xam dañu naan waxal ak ñoom yan relation fan la ñu xamante ba tey ñu war a mën a jël sanwunam xam nga. day mhm. baax nga expliquer ñu ak ñoom nan la relation bi demee woon pour ñenn ñi koy dégg mhm. mën a gëm mën a comprendre. Mhm. parce que tey nit ki bu ngeen jaxasoowul mënoo jël ay affaire am. c'est

ñom ñepp la yor sen contact ñu yag waxtan whatsapp dara tu vois mais quand même amna lo xamné bu amé yag na am. Hmm. té problème musul am bu amé introsel nit ki bu problème, respecté nga ko nga wax ak mom hmm. gis ak genre avec diplomatie. Hmm. mais waro ñëw déclencher ça si créer un bordel. di saga affaire yoy man saalum saalum laa kenn du ma noot ñooro laa dëkk te ñooru maamu ndëri ba fii la ma ba Jaxu Ba dëkkoon kenn nangu nangu wutoon kenn noot ko mënuma mhm. fi dëkk di ñàkk fayda yaa ngi dégg mhm. man saalum saalum laa te loolu looloy daw sama deret man du ma nangu ku jaar sama kaw bopp respect nga may def ma respecté la respecté woo ma ma jaar sa kaw ok noonu la demee kon mën nañ ci wax ne affaire daa yow ñoom amoon ngeen relation yoo xam ne tey lu ne seexoon ngeen ko daa da ngeen doon échanger yu bari ba tey mu demee noonu. merci beaucoup ci leera gi ndax tey actualité la. Mhm. ñu bari tey dañu koy wax ndax génnee nga son boo xam ne yaakaar naa ci mën nga ñëw ak ñun est-ce que ci sound boobu nga xam ne génnee nga ko. ñu paroles yi dégg nañ ci lenn mais am na loo xam ne des na leer ci ñenn ñi. ci see benn affaire gars am na benn écrivain xam naa su ma tuddee si tur yi mun naa juum. Hmm. nee na tout ce qui se bien arrive aisément et le mot pour le dire. Hmm. tout ce qui s'annonce clairement et le mot pour le dire dafa doon loo xam ne buy génn jarul sax ngay xaar suba ak ginnaaw soo pour bind ko mais dafa jàmp son bi affaire yi su déggoo ma de de 30 minutes laa jógee suma sama liggéey wàcc parce que sound bi yàgg nañ dañuy doon envoyé ay flyers ay liens ay tout ñuy partagé comme d'habitude jot naa flyers bi estati ko ma jot lien bi mu fekk may job aw ma jot ni mu ñëwee noonu laa ko waate sama estati xaw ma lan la Si me paree am jot si je déglu affaire bi ne non c'est pas c'est pas vrai Je jël affaire bi Je ko statut jël ñaari je sama parce que c'est identique même si lañ jël une ko statut lañ gis ci je ñuy c'est ça la question mm-hmm. hmm? parce que je gis affaire ma harceler pour ma noppi pour me kaw te tu vois ma def loolu noonu wàcce coow lu jóg ma ñëw sama benn gaayan ti ca bii selu à la euh, à passage xam nga Thiès la dëkk moom laa jox affaire bi wax ko na ma joobal instrumental instrumental mooy de 30 minutes booy bi la ko joob booy bu am bu am talent booy bu tàng samay biit yi presque moo ko joué tu mooy de 30 mu envoyé ma ko mooy de 30 minutes laa la wax ñu dugal ko commencé enregistré ko en live direct ñu si dara ba tey jii kay taxawul lépp lañ enregistré mu daw ak ni son bi ni paroles yi ni mu demee loolu yëpp mën nga wax ne préparé woo préparé wu ma dara dafa naturel son bi ni mu demee noonu laa ko génnee lépp laa génnee amul yenn bind yi ñu si def yëpp li si génn yëpp maanaam talent bu nekkee si yow dara bu nekkee si yow soxla wu nga koy préparé day ñëw si yow naturellement waaw mais comme ñëw rek xam nga waaw fekk bi gars yi dóor jàll nga balaa xeex bi di neex ñu toj sa gémmiñ man sama xeex balaa muy neex nga toj sama gémmiñ ah bon waaye bëgguma ay affaire yoo xam ne falaa falaa. day yomb quoi non non non. kon daal nanu xaar ne saa yi waxal moo ngi ñëw te ci kaw gaay la jëm si. su ma ñëwee kenn dootul duma ñëpp lay déranger toog si kaw nag ñëpp dañuy jébalu. kon gars yi ñoo ko déggandoo ñoo ko déggandoo waxal la ay waxam la. te yaakaar naa lu mu gëm la ndax am na jeune la am na talent macha allah tarkal la euh, ku gis ni muy wooyee nga xam ne ndaanaan la macha allah comme ni mu ko waxee. di fàttali mbokk internetu xewal gi TV yéen a ngi ànd ak ñun seen émission découverte euh, ñu namoon leen lool tarkal la gëjoon koo def tey nag ñu am ci invité boo xam ne bu espécial la muy waxal nekk artiste boo xam ne kenn dootu ko présenté fii ci département Nioro mu génnee son bu yàggul boo xam ne. ne na ci Sénégal yaakaar naa réseaux sociaux yi foo ci dem moom la gars yi waxtaanee ci problème am ak waa Express gis ngeen ni mu ko leeralee macha allah tarkal indi na ci ay explication yoo xam ne nit mën na koo dégg kon dañuy continuer nag ba léegi. Mhm. waxal euh, bëggoon nañu xam ñaata clip nga génne ginnaaw bi nga jàllee génnee single ñaata ñaata clip nga tourné. ñaari clip laa ñaari clip nga génne muy. Euh, Var ak. 3K euh, bi. waxal euh, le fait que euh, def nga ay ay ay ay son macha allah def ay vidéo xam naa dañuy wax gars yi rek ñu may ñëw vidéo bi nga xam ne tey jot nga ko tourné def nga ko waaw yaakaar naa noonu la war a demee waaw kon dañuy wax gars yi tegal leen ñu vidéo bi nga xam ne tey waxal euh, dóor na ko mu nekk lu am solo loo xam ne ngeen déglu ko bàyyi leen ñu bàyyi leen ngeen déglu vidéo boobu 3K.

investir li ngeen fort kaw kaw kaw kaw ñàkk jom di ma soot kaw kaw kaw kaw kaw kaw kaw wax ngeen ko di ma meex loo tey ma tey ko kaataar balbe ko màcc ko baaramu ba muy siiku biij ko riij ko kes ne nañ dañuy sii kaw kaw kaw kaw kaw kaw kaw kaw yàggal bu ma xete dooma dal xamal sa papa da nga dal boo ko deful yar bi dina dal toppandoo ngaaka du la fal ah bon dara xewal suma dëggal dara xew man rap am jàpp teg si galibaar de ci man man lu ma ci man bu ngeen nekkoon show sax nag ngeen mujj ci man kaw kaw kaw kaw sànni ay kaba ba ngeen kaw kaw kaw kaw du bare ngeen ñu dem àjjana ci dem du bare ngeen ñu dem Aja nanti dem bis barengan bare dem aja nanti dem du barengan ngeen dem aja nanti dem jaaw dana lay ci bra mom du ci dal da sel mom dafa xoñ te dara ne du ci dal muy jaamal gi yar dal it jël na tay fit bëgg ma def seen mit man ma wara it ah le bare ngeen ñu dem ñu dem ah le barengan ngeen dem ñu dem ma soor jëfur ngeen mujj ngeen foot ñett ñu kenn di boot topp di mbow ni doo mbow mbow mbow mbow gasen taxu ma jë maa ngi sama on way sàcc mag yàlla jë ci gaaju kuroon lay fay boo sàcc boo am it na nga nan wal ma ko du bare ngeen ñu dem acca nañ ci dem du bare ngeen ñu dem acca nañ ci dem bish bare ngeen ñu dem acca nañ ci dem du bare ngeen ñu dem acca nañ ci dem

ok yooyu yëpp comme wax nga ma ko sànq junj ma ko junj nga ma ko dañoo nekk ci milieu boo xam ne milieu bu compliqué la gis nañ ne ñu bari rapport yu bari ay jeunes talent ñoo ngi fi mais problème bi ñu am mooy problème mu euh, xaalis pour man di def lenn lii bëggoon nañu xam waxal fan la jëlee affaire am yooyu puisque tey ni mu devancé ñenn ñi ci wàllu clip ak son waaw. mën nga ñëw ñun ci loolu. organisation la wala dafa am lu nekk sa ginnaaw loo xam ne mooy loolu. c'est vrai que organisation là surtout ça amna ci mais liggéey tamit amna ci si yu personnel yo xam ñun dañ koy def ak nga xam ñu ngi autour de nous parce que waxal du kenn ni tan ah. ok kenn ngeen di gis mais waxal li nek ci ginaaw bari na te amna na doole te incha xamaguñ ci dara parce que gisagu len dara li du lancement sax li du ah, du intro sax li ni ay idée la ah bon ay idée la fi jaar def yi yëpp nga ne ay idée la. ay idée la dara génnagul quoi ñoo ko déggandoo noonu lay demee. bëggoon nañuy ñëw aussi euh, ginnaaw bi nga waxee loolu sa projet. que nit koo gis muy liggéey ginnaaw am na loo xam ne jot nga ko jàllale. Hmm. mais bëggoon nañu xam waxal actuellement lan mooy projet am. waaw instant yi projet bi gën a taxaw suñ kanam mooy. Hmm. gars yi dañoo ne waxal du rap. Hmm. danaa rap bu rey rappeur. un rappeur per rappeur si projet bi ni taxaw pour juste won gaay te li def ni du don dara si sama affaire du yaq dara si sama affaire taf taf la koy tour hmm. na dal sen kaw si ay freestyle doy war te ñong ci si job bi te récemment léegi ngeen am ay ay affaire affaire yu besta waaw kon man nañu xaar ne lolu la à part lolu lan tay la waxal na ma def ci deug bi ñax ñu ngi gis ne décembre bi ñëw na. Mhm. feet yi day bari

looloo tax defuñ si réaction mais dañuy xaar deuxième partie parce que en général ba seetloo Nioro fii nii. Mhm. Euh, en général manifestation yi duñu bëri parce que gars yi nag muñ joob mhm. artistes yi ñaata artistes nekk Nioro. bëri na ah. ñaata artistes ñooy def ay manifestation ñaar ñett fa laa yem waxal ak keneen ak keneen jeex na ñaata artistes ñoom ñoo fi rap depuis ay at di tànqal Nioro. di sonal gars yi seen di leen di tympaniser te mosuñ taxawal benn affaire wala buñ taxawalee benn affaire lañ taxawal nañ joob bàyyi caaxaan yi tu nañ joob ñooro nekkul kenn nit nekkul ñaar nekkul benn artiste nekkul ñaari artiste ñooro bëri na ay artiste te artiste bu ne normalement décembre bi dafa waroon a saturé ba fees avril bi saturé ba fees yeneen jours yi euh, weekend yi si biir euh, kii bi di saturé ba fees gars yëpp di wane seen bopp parfois gars yi di naan rap doxul ñor hip hop doxul ñor nu muy doxee tànk yi ko war a doxal toog sëngin mënul ne. loolu loolu nga yaakaar faute ci ñan si ci artiste ci artiste wala ah, ci. public mais est-ce que public est-ce que ñooro comme ni ko gars yi waxee amul est-ce que gëm nañu rab bi wala ci ñi koy def la seen comportement wala ni ñu koy defee mais dafa mel ni rab bi doxul ñoor ah. bon tu sais wax affaire boobu noonu mos naa sax def benn freestyle si si si kii boobu noonu. Hmm. gis nga gaay buñ buñ ne rab doxul ci ñoo rab doxul ñoro man mën naa ko bañ tu vois kon ce qui veut dire que artiste yi boppam ñoo war a coob lu bëri bàyyi caaxaan bi wax yu sew yi ak soxor yi un gis ku nekk si yoon sax yow da ngay chercher yow da ngay naan bu boosté woo rek man dee naa quoi c' est pas ça waroon na bañ a demee noonu yeneen temps yi duy doxee noonu gars yëpp a gëm am benn objectif di job tu vois c' que am na yoo xam ne day nekk parfois mu nekk intérêt général bu intérêt général taxawee sa intérêt particulier mm-hmm. ah da nga ko war a xaw a téye yaa ngi comprendre mm-hmm. mais en même temps di liggéey say affaire si suuf mm-hmm. ah mais da ngay gis bu ngeen boo séenee benn affaire muy waaj a wu rek nga ne xaar ma dooni benn affaire bu koy handicapé warul ne te si artistes yi noonu la ñuy joobee artistes yi yow boo nekkee di job sax yow dañ lay déranger di lay sonal ay wax yoo xam ne gàllankoor ci lu bari quoi tey man si domaine moment bi ma nekk nii Mm-hmm. c'est vrai que fan yi ñom ñongi discuter fan ak yoyu non bon yoyu non ay yenen ay parole yu deuxième là mais artiste yi ay acteur lañ waruñ waruñ waruñ di taxawé yenn façon taxaw yi tu vois ñun ñoro lañ nek ñoro lañuy ñuy xëccal yaa comprendre man suma demone bo kanaga tamit ñoro lay ñodil bu fekke benen artiste tamit ñoro lay ñodil kon man ak nu munti démé sama combat da ci wara taxaw ya nga comprendre ak lu munti def fu mu munti yegg ak lu lu munti don, ñoro ki gañ ya nga comprendre mais waro don ben samba alar mu am kuy xexi sa bir keur nga ne ki nek sa bir keur dem di farali ji benen nit bu nek fele koku nonu bu gagne limuy gagne day dem du la sax lijeunte kon lolu am fi amna am ah bon am fi ñoro dafa beuri ay chinit ay nafaq la lay tegal mhm, ci jéem jégalu ci kàddu bi mhm. mais dafa am te dafa beuri mhm. te bo gisee munuñ dem lolu kese moko def que nous changer voir, une façon de faire man bougé na nek na town nek na yenen lieu té man heure buma ma parce que nit li nga en mm-hmm. général yalla si loolu rek la lay sanni mm-hmm. heure buma ma jógee si ay milieu artistique rek lay daanu. Mm-hmm. art bi man maîtriser n'a si lu bari. du ma xamna ko mais maîtriser n'a si lu bari. té fréquenté n'a pas mal de personnes pas mal d'artistes. yu bëree beuri ñoo xamné ma ngi yor sen contact ñu leen di gis di am man awma seen mute ñooy fréquenté all day respect hmm. tu vois du problème man xam affaire bi nu muy doxee te am na yeneen gars yoo war nañ comprendre affaire muy nañ yi ñuy hmm. job pour gem bi mun génn rap depuis ay at ban animateur bu mag moom ñëw émission du show du am da ngay gis ko organiser concert au lieu nga gëm sa waa town ah fay dem produire def et tout ça ñoo teg ko fii duñ ko def dañuy jël seen di ko sànni si bi ñu di nax ah. c'est pas normal gars nañ gëm suñu bopp. ñooro foog ñu gëm ñuy jël fay ay artistes pour indi ko fii nii muy jëriñ. fay ñu def lu

aw ma bi fa kenn si rappeurs yi mais sama contact ñu ko sama relation ak ñoom tamit bëriwul. bëriwul tey est am na est-ce que am na rappeurs yoo xam ne tey. Mhm. am nga ak ñoom yenn relation yu kii yooyu. yu profonde yooyu. Ah. bon bëriwul. à benn rapport bi nga xam ne def naa ak moom featuring Khalil. Khalil waaw peut-être euh, sama benn boy la. si koñ ba la dëkk. Mhm. Artis la mo ngi ñew te amna talent mu na li muy def te mo ngi ñew incha allah la defal Cheikh Iba Fall bi mom la defal Sadio man bi tamit xam nga amna ak mom relation yenen gaay nak aw bif aw maa ngi dara dañuy and di bëgge dañuy tok cause affaire yoy c'est que man sama bop man ma bëriwul ay ay ay ki ay wa fréquentation quoi genre man toujours ma ngi sama coin di job ak ñom ci mbéd mi lay def wala rarement ak ñom ci ben studio wala genre mais du ñuy cause xaw ma leen bu baax parce que man toujours sama ruq laa nekk ak sama job. est-ce que jàpp nga ne loolu bokkul ci li nga xam ne dina gën handicapé euh, tey li nga xam ne mooy rabu Nioro. Mhm. puisque yéen ay rappeurs ngeen yéen a bokk métier bi ngeen di def. Mhm. je pense que doon échanger tey waxal dina am foo xam ne tey mën na fa dimbaleek benn rappeur bi soog a jóg. Mhm. mu jàppale ko ci comme ni nga wax sànq. mais bu relation yooyu amul est-ce que tey li ngeen bëgg ci rabu Nioro dina dina am. waaye mais bon question bi ak bi bokkul.

peut être keneen moom si boppam bu amee engagement pour wax ko wala wone ko peut être loolu ça lui concerne mais yow si sa bopp yow mi ko def laajul ngay wax yooyu noonu xam nga te man bépp artiste boo xam ne mos na nekk Nioro am événement yaa ngi comprend. nga invité ma wax ma si dama si wax lu sama àq lépp lu ma si man dama koy def concert yu bëri fii nii yoo xam ne gars yi organiser nañ ko am na conseil yoo xam ne gars yi dañ ko doon organiser jaay ticket dama leen doon jaayal ticket yoo xam ne presque ñoom si seen bopp sax dañu am problème pour jaay ko def naa ko ba ni waxal moom borom public la je pense que ni ko déggee. ak ni ma ko gisee waaw. sant yàlla am na loo xam ne benn public benn public boo xam ne au moins ak nu mu munti demee. gëm nañ ma quoi. te loolu bon maa ngi siy sant yàlla quoi. waaw parce que respe la gars yi gars yi ku leen gëmul gëmuñ la. Mhm. ku leen lijjantewul lijjantewuñ la. ku leen respecté wu respecté wuñ la foog day doon benn affaire boo xam ne danga koy job ñu telloo la ko yaa ngi comprendre te ñun toujours ñoo ngi góorgóorlu toujours di gën a élargi affaire bi muy gën a yaatu waaw ñoo ngi koy sant yàlla quoi. ok waxal kàdd gu mujj ndax émission bi dafa mel ni temps bi jeex na. Mhm. Euh, yaatal nañ ci lu bari. Mhm. bëggoon nañu def nga wax ñu sax kàdd gu mujj ñu tëj émission bi ba beneen yoon incha allah. bon sama cadre yu muju moy ben affaire lay ñëk wax gaay na gaay xaar waxal fiat quelques moments dinañ gis lu am doole nañ daw ci chaîne waxal officiel abonné ji tal seen cloche de notification na xamne dara du len bett lu ñëw ne len kang ci bop ñu gis moy ben ñaar di remercier wa ñoro yëpp xam nga plus particulièrement euh, sama koñ angal xay dugg ko We Rap Music sama label xama xam ne Kayz. label bu mag moom mooy label labelu ndaanaan yi. label bu mag mag bi. label boo xam ne dañ koy tànn benn. foofu lay wax na ko gars yi xaar ndax émission bi di dalal rappeurs yi. waaw saa moo ngi ñëw. Kayz ah. moo ngi ñëw moo ko wax di dóor incha allah. na ko xaar. incha allah artistes yi gars yi. contacter ko. mu def ak ñoom émission ndax mën na li muy def. te dem seeti euh, Urab Musique vraiment di bu mag. surtout ça ah, na artistes yi wàcc dem foofu noonu. jot bu baax bi moo fa te xam-xam moo nga fa te ku ñu fa fekke ñun li ñu man ak li ñu xam dañ la koy defal te artistes yi fa jot a jaar duñ di loolu. Ah. ñoo ngi def li liñ man yëpp te incha allah Urab Musique danañ toog ba di ko déglu si ay ondes yu kawe te loolu danañ si dox. waaw di jaajëfal gars yëpp nga xam ne ñoo ngi suivre waxal. ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi bëgg waxal ñoo ngi leen di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi bañ waxal nag yàlla yàlla raxasaat seen xool xam ne ñàkkul ne dañoo juum wala ñu dégg lu nekkul mais ñun ñoo ngi am jaamu. Ah. tu ak fans yi koy seetaan loo leen di wax ci xéewal gi TV ñu daw abonné ji seetaan ko. waaw affaire bi loolu la xéewal gi TV fa la yi di jaar. boo bañee affaire yi rëcc la demal nga abonné. tarkal xewal gi man yàgg naa di ko suivre ah. yàgg naa si toq na si sama nopp ma dem. Hmm. parce que amna na benn moment comp ma won sax ngi daw mais bima démé demee dugg sama nopp dama dem wori ci ko ma gis né job na lu bëri mhm. suivre ay vidéo yu bëri mhm. xolaat ko mhm. moo biñ ma waxé ay waxam ma contane ma fu fi la té na gaay daw dem abonné ji waaw bax bax bi la gi TV ok merci beaucoup waxal merci beaucoup waa euh, ñi nga xam ne ñoo ngi saxoo woon di seetaan xewal giti bi ñoo ngi am mbégte ak contentement di leen jaajëfal di leen wax ne ñoo ngi woon fii euh, ci euh, fast food Latiga fii ci rond point bi Nioro nekk fi invité woon ndaanaan lu mag macha allah tarkal la ñu koy wax waxal mu nekk koo xam ne ñooru la dëkk nekk ndaanaan nekk artiste nekk koo xam ne tey Sénégal yëpp yaakaar naa xam nañu ko. kenn dootu ko laajte ci liggéey bu am solo bi muy def ci musique bi nga xam ne mu ngi koy def di rap di ko def def bu am solo boo xam ne yaakaar naa ku ko dégg xam ne borom xam-xam mooy bind xam ne woykat mooy wéy moom dañu dalaloon tey fii di amoon mbégte dalal ko macha allah la di kontaan di ko jaajëfal ci invitation bi nga xam ne woyu si woon na ko euh, di kontaan aussi ñi nga xam ne te woon nañ euh, as ñi ko naan kees di borom euh, studio bi fële label bi fële ñu rap musique di ndaanaan macha allah sama maan Cheikh maa ngi koy bëggee moom itam ak assistant bi nga xam ne ñëwoon na muy homme art di ndaanaan moom itam nekk koo xam ne day jàpp ci équipe bi ñoo ngi jëfal ñëpp di amaat mbégte di amaan contentement di leen joxaat rendez-vous ci baneen invité ci baneen numéro incha allah jaageen jëf.